lu am solo la te booy dugg ci julli gi doo oo sa ndey doo oo sa baay doo oo sa nijaay doo oo sa président doo oo kenn koo xam ne sa relatif bi kan ngay oo yàlla ngay oo kañ kañ nga koy oo bi nga yëkkatee si ñaari loxo yëpp nit ñëpp gis la ne sa loxo yi dara nekku ci nga nga jël àddina muy sa ndeyjoor àllaaxira muy sa càmmooñ nga ne yàlla lépp laa sànni allahu akbar yàgg gën a màgg àddina yàgg na a màgg àllaaxira ngay duggee ci biir julli gi bi nga duggee ci biir julli gi noonu doo jàng beneen wax yonent bi nee julli gi ku ci boole ci boole beneen wax bu dul jàng alxuraan yàq nga ko kon bi nga duggee ci julli gi alxuraan ngay jàng boo demee ba war a rukkoo da wax ne màgg ak yàlla ngay tudd boo rukkooyee tudd sell ak yàlla boo sujjootee di tudd barkeb yàlla ak yërmande yàlla ñoo ngay def ba julli gi jeex waaye bàyyi daana wax ne jàm bi bu seetloo dëgg-dëgg dana xam ne julliwut yàlla moo ko dimbali rek defal ko julli gi ba pare askan ko ko nit mën naa wax ne man kat bokk naa ci julli gi <coughs> parce man maa jàpp man maa jublu penku man maa julli ànd ak mbooloo ñu ne ko ndox mi ngay jàppee kan moo ko moom tu tontu lu may yàllaa ko moom xibla bi nga jublu kan moo ko tànn yàllaa ko tànn li ngay jàng ci biir julli gi ku la ko jàngal yonent yàlla la ko jàngal kon yooloo ci doon jëf ji yëpp noonu la mel moo demee bana asalaam ne man bokk naa ci loo ci bokkee am contesté leen man bokk naa ci parce que man effort bi maa ko def man maa taxaw man maa rukkoo man maa sujjóot man maa toog man maa sarbal kon kay am naa ci part parce que am naa ci parti parce que man ma maa def effort yooyu yàlla ne la foo foo jëmee li yàlla wax ne innal quwwata lillahi jamian xam nga li nga def énergie bi nga am moo tax nga mën koo def te yàlla nag bépp énergie rek yàllaa ko moom gannaaw moom moom say bi kon léegi li nga def boo ko fu koy tuddee julli gi daal waaye na yoo xam ne daal yàlla moo bëgg moo bëgg rek defar ba mu baax rek mu askan ma ko inna allaha ida ahaba abdahu xalaqa wa nasaba ilayhi noonu la ko yonent bi waxee ci benn hadis ne yàlla su bëggee jaamam dafay defar ba mu baax mu askan ko jaam bi ni defe na jàmbee ko def te fekk yàlla ko def bi nga duggee ci biir julli gi ne alhamdulillahi yàlla ne sama jàmbi màggal na ma rabbil alamina mu ne ma jox na ma sama cër ba xam na sama gëdd arrahmani rahim mu ne xam sama melo maliki yawmi diini mu ne foofu nag laa doon xaaree jàmbi bu nga ñëwee ba agsi foofa yow danga war a laaj léegi na mm. boo ñëwee ci kilifa gu mag di ko seeti. Mm-hmm. seeti yoo ko pour bëtam yu rafet wala jëmmam ju rafet waaye da koo seeti parce que lam am ci nga bëgg. Mm-hmm. ñun tam bu ñuy dem ci yàlla bu ñuy jàmmu yàlla la àlla am ci lañ bëgg ñun tam. Mm-hmm. su ko defee yàlla ne suma jàmm bi laajal lu la neex ba pare nag yamu ba yamu bàyyiwu la nag. daf la jàngal li ko wara ñaan mën nga ñaan alal waaye alal da fay jeex mën nga ñam ñaan ay doom mën nga ñaan nguur lepp mën ko ñaan wa yoy yep day jeex lan nga wara ñaan yalla ne xaram ma la wara ñaan ihdina siratal mustaqim no no may rek jubal ma ci yoonu jub parce que lepp lu ne di def bànneexoo rek nit man nak bu ko amé mën na koo bànneexoo te fekk mu dagan moo tax yàlla buy maye du xàmmee ku ku elloo ku nag ku ko elloowul ku ne lay jox nam ko neexee te itam bu la ko joxee itam dafa lay xiir ci boppam encore dafa am benn waay bu ñëw benn euh, euh, euh, Moussa def na sama borom man de gis naa say jaam yoo xam ne yow rek la ñuy jaamu te mënuñoo am dara mu ne ko demee laaj dama dem dama laaj ndax li ñuy def man maa tax wala leen su fekkee ne maa tax duñ laaj laajati leneen parce que loolu gën lu ne Moussa ñëw ci benn koo xam ne daaram ji daanaka ay téeméeri téeméeri ñoo ko fa di jàng moo leen amee ci dund gi moo leen amee ci lépp yàlla na Moussa soo demee nag nga laaj ko ne ko ndax yàlla mën naa dugal ñay ci bën bën a pusa waa ji ñëw ci sëriñ bi mu ngi jàngale yëkkati loo xam ne dama bëgg a laaj sëriñ bi ne ko bismillah mu ne ko ndax yàlla am na kàttani dugal ñay ci bën bën pusa mu ne ko xoolal yàq caaxaan yi ngay laaj ñi rek man maa ngi jàngale fiq maa ngi jàngale naxu laajoo ma fiq laajoo ma naa xanaa nga ma laaj ndax yàlla mën naa dugal fàtte na sax yàlla la ñu wax ne ndax mën na ko wax dootu na ko yàlla mën na ko wala mënu ko jugal fii daal di koy dàq mu mu ne ko mu ne benn mu ne ko dégg nag laaj même laaj bi nga laaj ko benn waay boo xam ne jaamu yàlla la boo xam ne yàlla rek la doyloo même bu bëggee lekk mu ngi amee aw yët naan ko sama borom tey moom ceebu jël laa bëgg a añee wala ñoo ko sama bi léegi su ko defee yàlla rek eh, eh, eh, yónni ko ku koo jox ceebu jël mu ñëw ci kooku ne ko li may laaj mooy ndax ndax yàlla mën na la mën ñay ci bën bëni puso mu ne ko ni la mën a eh, eh, eh, lakkee te yaay yaay yonentu yàlla Moussa yaay kalimullahi yàlla mën na laa lakk waaye defu ko waaye bu ko neexoon mu def ko mm-hmm. ni la mën a lakkee bu ko neexoon mm-hmm. noonu la mën a jaaralee mm-hmm. ñaay ci bën bënu busa donc ci gëm yàlla yi parce que ñaare toujours foofu la nit ñuy rawante ndax dama gëm waaye gëm gi léeg-léeg mu am ay tolof tolof léeg-léeg nga nit toog talal loxoom ñaan yàlla yéex koo jox mu ne yàlla daf ma fàtte hmm. yàlla bu la fàtte woon doo dund hmm. benn hmm. eh, tarfatalaay yi waaye nag doomu aadama mel noonu yàlla moo ne moom lañ dañ koo bind lu may muy fàttekat day fàtte xewal yi njëkk yi moo tax dafay gaaw dafay gaaw a fàtte toujours boromam ko bu ko benn coono da da dalee rek. Mm. mu ne yàlla ah man yàlla daf ma fàtte man maa ngi nii di julli di or di def lu nekk te su su ma ñaanee rek duñ ma jox mais yow julli oroo pour pour di ñaan ñu jox la julli gi or gi faratar ci yow la. Mm. wërsëg bi moom yàlla moo ko garantil boppam. Mm. moo ne seen wërsëg yëpp maa ngi ko stocké ci asamaan. di ko wàccee. ci façon bu ma neexee ak yoon wi may jàllee dama mm-hmm. wax bërki démb rek maa ngi wax sama doom daaw la ma ne ko seetlul ne léeg-léeg nga génn sa kër fekk benn euro rek nga yore ci ci sa poche mm-hmm. amoo amoo leneen amoo le passé bu dellu si mm-hmm. te amoo abonnement benn waaye ñëw rek romb ne sëñ bi dimbale ma ci euro waay euro boobu noonu nga koy jëlee jox ko ko xam nga li tax nga jox ko mu ne ma déedéet ma ko parce que stock dañ ko war dencoon réserve la woon pour keneen bii boroom ñëwee sañ sañoo ko weddi noonu ko joxee rek ñàkk yow amoo dara moo tax yàlla li muy def lu mu xam la amul sikk te wax na ne man lu ma doyee di leen mbugal su fekkee ne yaa ngi may topp di ma gërëm kon kay du leen mbugal lu leen di mbugalee moo tax jamu yàlla daal digganteem ak boromam solution total moo ci war jox sa bopp ko jëppalu bam bam bam bam bam daj loolu moo ci war waaye yàlla yàlla wax ci alxuraan ne wa min naasi man yacbudullaha ala xarfin fa in asaabathu asaabahu xayrun itma'anna bihi asaabahu xayrun itma'anna bihi wa in asaabahu sharrun inqalaba ala wajhihi inqalaba ala yàlla mu ne yàlla yàlla nee na am na sama jàmm yoo xam ne ñoom dañoo jàmm yàlla topp ci li ko leen yàlla defal bu ko yàlla joxee jàmm mu jàmm ko bu baax a baax a baax wér ci jaamu bi nag waaye bu ko xasee euh, nattu benn nattu rek mu daal di wan gën a ah ne fii daal dara néew fi xasee la dunya xasee la dunya àddina te àddina ku ko perte rek da nga perte àllaaxira parce que àllaaxira du fu ñuy jëfee àllaaxira fu ñuy fayee la li ngay def lépp ci àddina bii rek ngeen ko mën a def àllaaxira noonu fayukaay la boo demee àllaaxira te fekk nga yóbbu lu baax moom la benn waaye daan wax ne gis nga yàlla dafa bëgg kuy feret di feret muy dem su ko defee boo ñëwee da nga ko fa fekk mu ne boo nekkee Europe te dooy feret boo ñëwee doo fa fekk kër te itam loo bëgg loo dugg mu jafe la waaye fekkee ne yaa ngi Europe li nga am yëpp moo tax danga koy wax gaañu toujours ne leen képp ku génn dem Europe wala Asie wala fa man di dem di fa daan sa wërsëg wërsëg bi xaaj ko ñetti xaaj benn bi nanga ci faj sa aajooy bopp yi ci saa si bu ñaareel bi nanga ci dimbale képp koo mën dimbale mu ci foofa wala ci réew ma bu ñetteel bi moom denc ko bu ko jegee mukk su ko defee bu bëgg a denc bés boo bëggee ñibbi sa sa réew boo ko jëlee boo ko génnee rek danga ci mën a waaj ñibbi danga war defal sa bopp koo jóyam kon nag loolu mooy li nga xam ne doomu aadama da ko war a itteewu ñu jàmm yàlla bu baax a baax te yàlla kenn mënu koo ndax ndax na mu yaalamu xaainatal ayuni wa maa tux fi sudur mu ne même sa bët piis bi nga piis sax yàlla dégg na li nga ci te itam dina ci biir xol yi la lay jàngal moo tax yowmal qiyaamati bu nit ki ñëwee ñu laaj laam nañuy laam nañuy jéem a jéem a yàlla daf koy kaste ne loxo waxal loo mas a laal tànk waxal foo mas sa dem biir waxal loo mas a lekk yëpp cër ju nekk cër bu nekk su ko defee doomu aadama ji di wax naan dina la wax ne ah dama leen doon jéem a sowe ngeen bañ te ngeen deede parce que yàlla dana leen ma dana leen mbugal kon loolu mooy li nga xam ne nit ki daf ko bàyyi xel daa iman wa abadan mhm. yàlla bu la war sa gélay sant ko mhm. te ni koy santee nag mooy def def ko ci lam ne la ko neex soo ko defee ci la ko neex itam daf koy dajalaat bam bam ba pare mhm. dóor dóor ko ci fukk soog la ko delloo man jaa abil xasanati fa lahu ashru amsaaliha sa benn benn yi fukki fukki la ko yàlla fayee ba juróom-ñaar téeméer kon yàlla moomu moom rek moo jara fuglu moo jara jàmm yàlla itam baax gim baax tax na mu yónni ay waliyu ñuy repêché nit ñi ci gémmiñi safara ci buntu safara ndax ku dem bay waajee dugg safara ñu fàttali sa borom nga wax ashhadu an la ilaha illallah yàlla far mbooleem say bàkkaar kon koy ko daf laa musal ci eh, dugg safara yàlla moo tax benn waay mos naa nekk ilimaan ci benn jàkka bi mu nekkee xale nag ku saggan la woon daawul julli daw toppatoo diineem ba benn bés mu toog ci biir toog ci këram rek daal def autocritique am dañ ne maa ngi tuubal yàlla gannaaw tey dootuma defati dara loo xam ne nekk ci loolu nekk ci loolu bañ fal ko ilimaan buñ ko falee ilimaan muy jiite lu ëpp fukki at benn bés ci biir jumaa ji xam naa ci fanam yu mujj muy euh, nekk ci kaw minbar bi di xutba rek fàttaliku démbam bi muy ñaan mu ne yow suma borom maa ngi lay ñaan nga baal ki gënoon a sàggan ci mbooloo mi da nga baal ko mu ne bi mu ko waxee ndeke am na benn wali bu nekkoon ci mbooloo mi ne amin bi mu dee rek yàlla yóbbu ko àjjana benn xaritam gént gis ko ne ko nu sa borom defal gaw waaye xamoo xam na xamoon nañu ko sax yow li nga liggéeyal yàlla il faut que mu fay la <laughs> mu ne ko eh, loolu taxuma taxuma dugg àjjana hmm. mu ne ko loolu tax a mu ne keroog bi nga xamee ne jàkka ji yaa ngi koy fàttaliku benn bés teg naa ci jàkka ji di wax yàlla ne ko yàlla nga baal ñi gënoon a sàggan ci kaw suuf keroog xam nga lu ma si jubluwoon sama bopp laa jubluwoon parce que man xam naa sama ndaw bi waaye bi ma bi ko bi ma ko waxee mu tombeek benn nitu yàlla koo xam ne yàlla nangu na ñaanam ne amiin amiin waa jooju moom ma dugal aljanna moo tax dajee yu bëri yi da ci am loolu léeg benn dañ ci am mag yàlla gu zahir parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jullit la xoolal sa mbokkam jullit ba sëb cofeel ba tëb cofeel moo gën nga toog suma juma atum lëmm di jaamu yàlla. Fayda FM rajo bi ngeen doon xaar ngir matal seen yaakaar.